tegtal yu bari bu soobee yàlla ni nga xam ne beneen jaam bu dul sëñ Tuuba wala sëñ Tuuba waxtu ko ko lu la mën a lu ko weesu wala lu ko ko njëriñ ci yow ila yaqad allahu ma lam yakuni wala yakun abada li mumkini bu ñu tàmbalee ci lu ñu solo ndax sayidina abubakar nee na inna dinana mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli suñu diine ji dañ ko tëral ci toxal maanaam da nga naan yonent bi neena jibril neena na suñu borom neena wala diw neena diw neena yonent bi neena na waaye doo seet li jub ci sa ak lu mu rafet rafet ngeen ni la nu loolu nag nu bàyyi ci xel tax nu tàmbalee ci ne jële naa ko jële ci moom ne sëñ Tuubaa ba mu jógee seet da di jaamu yàlla ba suñu borom wan ko yoolu jullit ñi ko jiitu ñëpp xeeti yoon ya ak nañu toll mu gis ne yoolu ñi xare woon badar la ca gën a xemmem moo ca gën a rëy gën caa rafet gën caa mag gën caa xemmeemu mu laaj sunu boroom nam koy amee mu ne ko wéy na julli mënatu la koo may jàng mënatu koo may woor mënatu la koo may xam le nit mënatu la koo may jëf jenn tuyaab mënatu la koo may ndax yéy na ba mu naagu mu ne ko waaye danaa ko jaay moo ñu ko ne ko ndax sañ naa xam njëgg mu ne ko waawaaw waaye ku dul jaar na ci laaj ko te ku ma ko ci wax da nga koo woon gannaaw ndax duñ la nattu nattu wàll yi nattu yonent lañ lay teg te bu ko sa bakkan attanul nga dee mu ne ko bu ma ko sañee xam naa ko xam mu limal ko yooyu am ko limal daañu ca lim doo dox wu ci say loxo doo gees sa gannaaw doo lekk ba suur doo tëdd ci lal nelaw doo toog waxtaan la la neex doo séen asamaan lim nañ ko ba muy yu bari boole la ak say noon yi xijajin lu ñu xam ci lu bon yàlla kàttanal leen ñu di la ko def ci lu metti ak loo sib bis boo nee lu ma jotee yéen lu ma la mayoon danaa ko nangu bis boo nee uh lu ma la mayoon danaa ko nangu bis boo xamee ne si gëm wàññiku na lu bon bon du ma récc si gëm yem ci waaye dama lay alak ba mu ko waxee ba yoree na mu jeexe mu ne ko nangu naa ko teg ma ko ay dégloo dégloo ba sëñ Tuubaa xabee yan boobu yenu ko ba àggale ko fa mu ko war a àggale ñu limaale ko ci ahlu badrin ahlu badrin mooy bu ñu seetee jullit ñi dañu naan ñooy ñu ci gën a rëy mbir ñoom rek la suñ borom ne lu leen neex def leen sañ leen ko su du leen wàññi الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه يوم لي مبكو بن زياد الله سبحانه وتعالى مدفن توفيق تدفن لنكو vidéo bi xam lañ اندالي ndaale te ki ci wax incha allah xam na lii mooy doon jotaay bi jiitu ci silsile bi nga dañ ko tàmbale ci taxaw seetlu ci ay wax yu bari yoo xam ne Sëriñ Sam doon na ko wax te mu tasaaroo te ay nit daal koy daal koy fas ah li jubluwaay rek mooy jubluwaayu li tax ñuy yëkkati ay bind nit wala ay vidéo nit di ci commentaire mooy laaye biir suñu mbokku jullit euh, ndaxte ñi nga xam ne ñoom lañuy di taxaw seetlu seeni wax seeni njumte su fekkoon la ay njumte lu yem ci ñoom yu tasaaruwut euh, mën nañu wax ne du jar di ca taxaw seetlu fekkee ne jóge nañ fi waaye njumte loo xam ne dafa tasaaroo ay nit ba tey daal di koy daal koy gëm ku du jiit mooy laay biir ay ay nit ba ñu xam ne loolu ñu fas noonu gëm ko ba pare di ci woote daa juyoog jàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa te du juyoog jàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab jullit da ko war a ba da ko war a moytu da ko war a sori bal sa saay bu gisee ak nit nar ca tabbi daa war a xëcc ci daa xëcc loxoom sori loo ko moytu ko mbir moom mu nar a mu nar a mu nar a tabbi tax ñu tànn Sëriñ Sàmba yi dafay dellu ci ci mbir yi mooy képp kuy faral di taxaw seetlu li nga xam ne walla ñi nga xam ne ñoom ñooy jéem a layal yoon yiñ fi sos ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dangay gis ne ñaari nit la koo xam ne dafay taxaw la sax ca yoon wa mu la dëggal ne lii lu sax la di ko jéem a layal ne lu sax la ci lislaam kooku na ngay def ak moom mooy won ko ne lii saxut ci lislaam ci lu leer keneen ki mooy ka nga xam ne xam na ne yoon wii yoon ba ñu jaar saxut ci lislaam waaye day def saay bu nit indee lu bokk ci yoon wa mu taxaw ne lii bokkut ci yoon wa boobu di yoon bi nga xam ne bokk na ci yoon yi gën a fés ndax dafa am mbir yoo xam ne def ne dafa leer na jullit moom xaw am xel tuuti sañatoo taxaw di wenante ne lii daa bokk ci islam kon ñu bokk ci yoon woowu dañuy gis ne ñenn ci ñoom lañuy taxawee mooy daal di jéem a weddi na lii bokkut ci ci yoon wi ah bokkoon ni ñuy weddee ñaar la soo leen indilee su wax ab mbir eh, kenn ca bokk ci yoon wa wax ko te waa yoon ma nangul ko duñ ko mës a ŋàññ duñ ko mës a xas la muy wax duñ ko teggi samay problème ñoom yëpp ñu taxaw soo indee waxu ku mel noonu ku mel ni na Messere nga xam ne bi da koy woo yëkkati ko soo amee problème mu joo daal di koy reconforté te nekkoon su ko dara naqaree naqari murit yëpp soo indilee waxi ku mel noonu dan naan la lii di waxi sëñ bi moom la engagé ah, kii tekkiwu dara ci ci yoon wi ah soo indilee dana indil waxi sëriñ bi soo indilee waxi sëñ bi ñu ne waxi bi déggoo ko. ñun ñoo ko moom moo ko dégg ah kon nga xam ne ñaari yoon yooyu yoonu tappale la léegi indi Serigne Sam Mbaye dafay dimbali leen mooy kenn du mën a wax kii bokkut ci yoon wi wala tekkiwut dara ci yoon wi comme ni ñu koy waxee ci gànnames Messere ah, la muy indi tamit ci waxee sëñ bi moom da koy tekki ne nii lañ ko déggee kenn du lu mën a waxit kon yow yaa déggul waxi sëñ bi nga jàpp naa ne kuy suñuy jël ñoom seen i kàngam am naa ñi gën a dégg waxee sëñ bi ci la bokk kon la yooyu dafay jeex lay tappale yooyu dafay jeex li ci des rek mooy nit ki nag kon daal di jéem a laayal mbir yi xam ne mu ñu indi teg ko ci alquran ak sunnati jun ci loolu la ñuy woo loolu la ñuy woo kon lii moo waral nga tànn ki nga xam ne mooy sëriñ sëriñ Samba yi am na benn côté am c'est personnel ndaxte sëriñ daa bokkoon ci koo xam ne bokkoon na ci ñi ma doon déglu lu bare bare bare bare bare ci jamono ju ma nekkee ci yoon woowu jàpp naa ne sax amul kenn ku mu doon dégloo noonu moom ni ma ko doon dégloo ci ay waxtaanam ak li nga xam ne moom mooy euh, euh, li muy jàngale ak ni muy dëgërale mbir pas-pas yu bari ci yoonu bi nga xam ne ci la nekkoon di ca di ca woote ma yëg ne bokk na ci nga xam ne réer gi tas jamono jii nii dañu bari nekk ca te bëgguñu koo bàyyi euh, ba soo indee ayab yàlla xadis yonent bi sallallahu alayhi wa day mel ni dañoo tëx gumba wala dañoo gumba tëx lu moom mi am na ca waar bu yaatu bumu ca moom ca bay boo xam ne faw rek ngir daal di digloo nit ñi liñ leen di wax faw ah, kii tamit ay waxam ñu jël ko teg ko ci alquran ak ah, sunna ba nit ñi xam ne lu bari ci mu doon wax dafa juyoog li nga xam ne mooy jàngaleeb ah, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam laalla na yàlla subhanahu wa taala nam gindi yàlla subhanahu wa taala daat leen di daat leen di daat leen di gindi kon lii moo waral Euh, ñu choisir ki nga xam ne moom mooy Serigne Sam Mbaye euh, ngir daal di am taxaw seetlu ci wax yoo xam ne yàgg na koo yëkkati di ko jàngale te di ko askanale ki nga xam ne moom mooy ab ab sëriñam xam naa li ma ci yokk rek mooy Sénégal fa am lu ñuy doxe te keroog benn mbokk daf ma yónnee benn charte boo xam ne benn ethnie nekk Sénégal ñoo ñoo ko bindoon ngir daal yi teg ay charte yi nga xam ne seen société ci lay doxe mu bokk ci charte yooyu ci article yëpp ñu ne aw fen su demee ba durée li nga xam ne moom mooy juróom-ñeent fukki at mooy fen bu durée juróom-ñeent fukki at fen woowu dañ koy jël mu nekk dëgg mooy kenn dootu weddi fen dañ koy jël def ko dëgg ba ma gisee loolu mu yéema lool mbokk mi ko yónni tamit bàyyi ma xel ci loolu bàyyi loo ma xel ci mbir moom mooy ne lii de Sénégal ba tey ci la doxe doxee waaye soo settantale baax a baax gis ne loolu am la loolu am na ci fànn bu bari raar na soo ko xoolee tariqa yi da ngay gis ñoom lépp loo xam ne dafa yàgg donte ci ba muy tàmbale doon nañ ko weddi tar ca lool su demee ba yàgg dañuy nangu mbir ma te mbir ba la mu doonoon la doon ba tey keneen si ñëwee woote woo lu mel ni kooku woote ñu nangul ko jiitu ko mujj jël ko bëgg a jël àdduna yan ko yan ko ko nañ jël exemple exemple yi jël suñ njëkkee jël fan yi gis nga ab yonent boo xam ne aw nit boo xam ne aw fenkat boo xam ne génne ne ab yonent di woote woo yonent Sénégal gépp jóg ñëpp jóg ne du fi du ko fi waxe dab yonent yonent amagut te pourtant soo gisoo rek gis laayeen yi ci ay at yu weesu soo remonté doo weesu day weesu ñeent fukki at yi léegi mën na sax téeméeri at ak lu teg même chose kii lii kii wootee la kële woote kii sa moo tax ne ndax kii daa benn jàng arab am na lu jàng alquran waaye kële moom mooy sëriñu laayeen sa jàng ci alif woote woo yenent tey jii suñuy tudd këru nitu diine dañ koy tudd dañuy dóor a laaya ni tey ku leen dal da ngaa ci mag ñi dañ koy boole ci mag ñi lan mooy différence bi rek fen bee daa yàgg bii bees donc amul beneen différence kii njëkk woote nii su fekkee kii mujjee woote fekkee aw fenkat la te fenkat la kon këli tamit aw fenkat la kon lan moo tax bii ñu nangu ko bële ñu bañ ko wala bii bokk bokk toleer nañ ko suñuy tudd turu kër yi diine yi tudd leen ah, suñuy eh, wax mag ñi boole leen ca waaw ah, loolu ne waxaan wu yàgg la rek soo xoolee ba tey el cheikh ñu ne wootee mbir yu bari ay nit dal ci kawam waaye soo xoolee fel cheikh jaar bi mu commencé nii ak fi Ibra Niass Ibrahima Niass tàmbale commencé ah, dangay gis ne Ibrahima Niass el cheikh bu réussir la rek ndax tey jii loolu cheikh woote woo rek mu woote woon na ko. dafa teg mbir mi woote wala ko al cheikh teg donc gis na Ahmed Cheikh Tidiane dem naa ci tem dem naa nangam baatin baatin baatin la al cheikh dal di daj tey jii nii nit ñëpp daal di taxaw waa tarixa ba ne lii ngay nekk nii ay fen la du yoon te loolu mooy la am la mu nekk aw fen la daal du ca lu raw la Ibrahima Niass dajoon ba muy tàmbale wooteem ko faydu ko tey jii nangul nañ ko ko daal di koy bañal Kamal Cheikh ah soo jëloon tey fan yii day gis ne kii di Aïcha wala kii di nu tudd sax eh, soxna wala kenn ci ñi nga xam ne doon nañ nekk ak Béthio ndax xaw ma ndax soxna wala du soxna ndax Béthio ëpploon na ñeenti soxna kon xaw ma kooku mu ñaata la sax. boo kon daal ci nekkaale Béthio Thioune tey ji lu mu woote rek Béthio mos naa woote lu ko gën lu ko piir fu ñu teg ay waxam ba buñ koo dàq daan ne moom ay ay di jàlloo fu ñu mën a teg ay waxam wala ay wooteem ba ne dafa wuteeg charia fu ko tegee fu raw fekk fa waxi Béthio wuteeg charia ah te pourtant de Béthio ba mu faatoo seen xalifa moo moo xataraayu na foo ñu suul ko tuuba li tax ñu nangul kii bañal kële fen wii dafay yees rek bële daal di bële daal di daal di yàgg loolu nag moo dal moo dal tamit tey ci li nga xam ne moom mooy Gana Messere ñuy weddi Gana Messere la ñuy weddi ci Gana Messere di ko dàq naan ay waxi daanu la dañuy fekk lu ko raw ci nga xam ne moom mooy sëriñ sëriñ Sam Mbaye Sénégal nag nii lay eh, nii la yàgg di nii la yàgg di eh, di waaye sagam nag waa neen waa caaxaan ñoom ñoo rusut am lu ñu rus mën a taxaw seen i di ko tasaare am seen fulle gu mat sëkk mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal jaral leen lépp waaw ah, wax dëgg yàlla dëgg nag war leen jaral lu toll noonu wala lu ko ah, lu ko raw te waruñoo rus waruñoo tiit waruñoo hésité fu neen jaar rek tasaare seeni réer. ñu jaaree fa daal di leeral li nga xam ne mooy dëggu ko yàlla gi. nekk ci vidéo bi dañuy gis ne daa am mbir yu bari yoo xam ne dafa juyoog li nga xam ne mooy sharia sharia nag mooy lislaam mooy yàlla subhanahu wa jox yeneen mu jàngal ko jullit ñi li ñëpp ci li ñëpp war tënku. suñ ko nattee foofu dañuy gis ne mën nañoo wax ne. am na ñetti anam yoo xam ne dañuy gis ni wax ji jiyóog li nga xam ne moom mooy euh, jàngaleeb yonent bi sallallahu alayhi wa wax ji mi ngi dellu rek ci ne moom dafay tudd fa tudd ab bayt boo xam ne sëriñam moo ko wax muy leeral baytu woowu noonu ak lam ca jublu jubaytu ah, ba sëriñ bi dafay leeral ne moom ah, yàlla wammatal na ko lu musta am te dootul musa am mooy yàlla jox na ko lu musa jox kenn te keneen yàlla subhaanahu wa taala jox na ko ngëneel xéewal koo xam ne mënu ko mus koo jox kenn du ko jox keneen lu musta am te dootul amit la ko yàlla santal defal loolu la lay leeral ci naka la amee suñu doxee foofu mooy premier tomb bi ma yàlla subhanahu wa taala day defal nit ay xéewal nit sax doomu aadama mindeef xéewal gu moom yàlla subhanahu wa taala moo ko ko moo ko ko defal loolu laa chaque ne nit do taxaw di ci di ci werante naam waaye ndax nit ki mun naa wootew bépp xéewal na yàlla defal na ko dañ ko ko war a tànkul tontu yu may déedéet tey nit su taxaw ne woote woo fii ne yàlla defal na ma xéewal ñu ko amee xéewal ma def na bu yonent te nag da ngay fen yàlla defal la ko ndax yàlla dootul yónneeb yonent tey nit su taxawoon ne yàlla defal na ma xéewal ñu ne ko luy xéewal ba mu ne xéewal bi de mooy ma gën abou Aboubacar dana nañ ko li nga wax amut abubakar moo gën ci umma bi bil ijmaa keneen mënu koo gën ku ne xewlu googu yurut li nga waa amut kon suñu xéewal gi nit di woote woo faw mu doon du doon xéewal goo xam ne su ko nettali charte yi gis ne charia dafa am ñu ko jagleel te yow ñooñu bokkoo ci ñooñu wala lu ñu gis te dafa am lu muy wuteeg ci charia suñu gis daa am wuteeg charia loo xam ne sax da koy dàq nañuy xam ne yow mi li nga loolu mooy jiitu su fekkee ne xéewal la goo xam ne nag charia dàq ko fenn ne nit mën na ko am waaye yoon ba nit bañ mën a jaar ba xam ko mënta doon lu dul ci yooru charia faw ñu laaj la dalil nag ngir ñu saxalal la xéewal googu am nga ko yow ba nga danga koy waxee faw nga indi ñu lay ci yoonu sharia ne yow xéewal googu am nga ko matala nit su ñu woon nañu tey jii ah, man de yàlla defal na ma xéewal say bi mu waxee benn subhanallah yàlla subhana taala dina ma ko fulal mat un million de tuyaaba loolu lu a nekk la yàlla muy ful ko neex waaye xéewal goo wax yàlla sama la ko defal lan muy findig yàlla defal na la ko ndax yonent bi moo la wax yàlla defal na ko su fekkee moo wax yàlla defal na ko ñu nangu fekk na fekk alquran yàlla moo ko defal ñu nangu mën naa bokk ci ab jins ci bokk ci melo ah, melokaan yoo xam ne am na ko ñu fekk ci alquran melokaan boobu am lii nga am ñu daal di nangu su fekkee ne yàlla subhanahu wa taala saxalut loolu ci yow yonent bi saxalu ko dañuy jël mbir ba daal di sànni fële moom da koo génn moom xam da ngaa tase koo jàpp ne ab yonent la moo xam moo xam moo xam dañ koy jël sànni fële duñ la ko nangul dañ koy bañ te li ñu koy bañ day sàmm lislaam ndax suñ ibbee bunt boobu waaye ju jug rek daal di woote lu la neex nag xéewal la lu mën a nekk la kon nekk na kon lislaam daal di tas kon fawda am kon ñu ibbi buntu yàqute ci lislaam kon ku nekk rek mun ngaa jug yàlla defal na ma xéewal sàngam xewal gi sama mën am kon amna dedet faaw ñu delo ko ci li nga xamne mom moy mom moom sharia charia ñett na su fekkee xéewal la go xamne xewal go ñu mëna gis la yàlla subhanahu wa taala defal xewal go xamne nit ñi dañ ko mëna gis te jox na yor nga sa auto di dawal auto bu rafet ne lu yàlla la ñu gis ne auto bi ya ko mom keur gu rafet am nga ko ah yàlla def na nga mokkal alquran mokkal gu set wecc ci ko jàngale lolu xewal la ñu gis ko ah yàlla subhanahu wa taala def na la nga jikkoo jikkooy rafet nangam ak nangam ñu gis xéewal yooyu soo ko waxee foofu mun nañu wax ne day dugg ci fa amma bi nicmati rabbik fa xaddis faaw soo ko waxee yow yàlla yàgg sa borom yéen xam sa lan sa yéene ci mbir wax jang ko wax yàlla fay la ca wala nga am ca leneen su fekkee ne yéene ba rafetut su ñu jëlee nag li nga xam ne kon moom la suñ saam daal di woote. fii nii ne sëriñ wax na ko ñu gis ne duggut ci xéewalu boo xam ne lu nit ñi teg seen bët la dafa dugg ci xéewal goo xam ne ku ko woote ak ngëneel goo xam ne ku ca woote faaw ñu daal di xam ndax lii nii nga woote woon am nga ko sharia moo ñu saxalal ne am nga ko loolu mooy point bi jiitu foofu la njëkk mbir mi njëkk a wuteeg li nga xam ne mooy sharia te ku dégg ay waxam day wax ne sëriñam dana yàlla nee na ma yàlla kañ la ko ko wax ndax dafa su fekkee ne dafa wax ne sëriñam doon wax ak yàlla directement wala yàlla ko da ko doon wax ak nu mu munti décrire wax boobu lu mu ilham ci xolam la lu mu lu mu lu mu lu mu ba ñëw daal di ñëw affirme ko nii ne yàlla subhanahu taala nee na ma euh, ma ne ko mu ne ma comme ni mu ñëwee loolu dafay wuteeg li nga xam ne mooy alquran lim ñu lim ñu jàngal. دحتي يلا سبحانه وتعالى من وحده لا يرنينو ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم يعني سبحانه وتعالى آية بي ne yàlla subhanahu wa taala li nga xamne moy ghaib yàlla mo defal ngeen sangam lolu day dugg ci kumpa yàlla gi yàlla subhanahu wa taala duñu ko xamal lu dut ne daf ko jaare ci ak yonent wa ma kaana allahu li yutliakum ala alxayb walakin allaha yajtabi min rusuli man yasha moo da yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo naa ñu ها نفكي ولا ديو مانغا اجانا ديو مانغا اجانا ديو مانغا اجانا ديو امنا نغنال تا يالا ديو يالا ديفال نكو سانغام ديو يالا ديفال نكو سانغام دبنا اجانا دغنا فا تانكي بلال ا يو ا عمر الخطاب منو اجانا غيسنا ا ا ابالي غيسفاب ا بن شي سوسخني ajjana yi ñooy jàpp maladi xalaat sa li nga xam ne mooy sa fiiraange maladi yi euh, wëlbatiku yow uhud dalal ci doog sa kaw nekk lu ab yonent ab siddiq ak ba ak ñaari ñaari shahid ñu xam ne kon diw mi am na ngëneel gi suba dinaa jox li nga xam ne mooy raaya gi koo xam ne yàlla dafa bëgg yàlla kuppa yonentaam yàlla ko ñoom dañ koo bëgg ñu xam ne ah alim mi am na am na ngëneel gi su lay topp soo demee ci téere xadis ñu ne manaqibu saxaaba da ngay topp benn par benn xadis yonent bi salallahu alayhi wa sallam keneen ku ñëw saxal ko ngëneel nii lan la koy saxalale alaku yonent bi salam faatu bay junneet mu ñëw ne am naa nangam ñu ne dañ koy nangul fan la ko yàlla waxee loolu ndax yonent yi la ko wax ñu wax ko ko wala ab yonent la ko wax mu xabaare ko fan lañ koy fekk te dafa wax lu am solo sàmba yi waaye bàyyiwu ci xel te loolu dafa tegg li mu wax yëpp mooy nee na Abu Bakar nee na nee na nee na mbir yi diine ci fiñ koy teg moom mooy an naqal mooy lu ñu toxal toxal gi su a naqal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa nee na diine ji loolu la nekkut ci nit ki lam rafetlu ci cam xelam loolu di du wér waa lii fi ñu koy teg ana naqale bi jamono ji nga xam ne ci la kii waa wax lii munuñoo xam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax lu doon jëlab sanat mu jóg tàmbale ci moom ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu am ab téere boo xam ne wala ab sanat boo xam ne daal di xabaare woon na am na diw boo xam ne dafay judd nàngam tudd nàngam dëkk bawal nàngam ak nàngam am na xéewal sàngam ñu xam ne lii lislaam la bokk waaye fekkee yoon yëpp mënuñu faa jaar ba xam li nga xam ne mooy li mu wax ni kon duñ ko jël daal di koy delloo te woote woo ga mu woote moo kon ne yàlla sontal moo ko wax am na problème ndax ñaari mbir moo am ma imma de yàlla doon wax ak moom hada la chekk na julli du taxaw ci werante di ko jox ay mbir di ko wax faadiyan su fekkoon ne yàlla sontal yoolu jullit ñii di wax ak ñoom ku nekk mu jàmbaarloog yow di la wax naan nangam ak nangam ngay wax naan ko yàlla may jaay teew ana lu tax mu doon yónni yonent bi ñooñu ana sax lu nu wutale bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, su fekkee ne dafa woote woone yonent bi sallallahu sallam moo ko wax dañuy laaj mu indi ñëw fan lañ koy fekk waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbir moom kon li jiitu mooy jëmmi woote woone yàlla subhaanahu wa taala daf ko wammatal lu musta ak lu am mukk mu jublu ci li nga xam ne moom la sëñ Sam Mbay di wax ndax fekk na loolu kon dafa dàqu li nga xam ne moom mooy ci ci sharia bi mooy jëmmi li mu wooteewu mooy fond wu mbir mi ci li mu wax mooy ne dafa jaayanteeg yàlla sunu boroom jaayante bi mi ngi tegu ci lan am mbir yoo xam ne yàlla daf ko koy teg ngir muraad yi am li nga xam ne moom mooy ajr wala boog fay wala ngëneel gi nga xam ne ahlu badr amoon nañ ko ñu taw ci ñaari mbir mooy li nga xam moom la yàlla jaayanteeg moom moom li mu war a def ak li ko yàlla sonta war a fay ñaari mbir yooyu foog ñu taxu seddu ci li mu ñu ko tudd mooy bokk na ci li ko yàlla jaayanteeg moom mooy jëmmi bokk na ci dootu tëdd ci walal dootut dox di geesu dootut dootut dootut suñ xoolee mbir yooyu dañuy gis ne ay mbir la yoo xam ne dafa dagan ci lislaam lislaam def koo yoonal mu nekk mbir yu dagan mbir yooyu képp ku ñëw loo xam ne lislaam daf koo dagal yoonal ko nit ki war koo def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan doxalee noonu daan def mbir yooyu nit ki ñëw mbir yooyu jël ko def ko lu muy def ngir jege yàlla sunu borom kooku wàcc na sharia yonent bi sallallahu alayhi kooku indi lenen la waaye du sharia yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla subhanahu wa taala naka lay yónnee yonent mu nekk ka nga xamne moy mooy mujjug yonent ba pare taxaw nak nañu ba pare yàlla daan nañu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun liman kana yarju allah wal yawm al akhir wa dhakara allah kathira dar yo ñep lay waxal mooy serigne touba ji duggu moy ki modelam suñu modèle ñëpp mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy modèle bi parfait ko koo xam ne da yaakaar dara ca yàlla yaakaar dara yow mal qiyam fi nga ko war a jële ci modèle bii nii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon da nga mën a defee loo xam ne def ko jaamu yàlla du yonent nekkuloon jaamu yàlla ci moom da nga mën a tegee sa bopp dara te yonent bi jàngalewut loolu mu doon loo xam ne ko war a tegoo di ko def nga ko jege sa bi def ko mu nekk sunu modèle mu jël indi leneen jox keneen loo xam ne duñ ko fekk jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bal sax mu li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi ñoo ngi ci xadis boo xam ne Anas ibnu Malik moo ko solo wala moo ko moo ko solo naam génne Buxaari génnee na ko ak Muslim yonent bi sallallahu alayhi wa No. ¿Cuál es su nombre? جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا تزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال عنتم أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم الله ولا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وتزوج النساء وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني مالك نينا دفم نتي نتي نيوتي كر كري صحنا ينتمي صلى الله عليه وسلم تقول لك ci jaa di leen laaj ci jaamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xibaare leen ni bi doon doon jaamu yàlla suñu borom eh, ñu daan ne ñoom ñu daan ñun yonent bi ñun yonent bi ñu nekk yonent bi bokku yonent bi yàlla da ko jéggal li weesu ci ay bàkkaaram ak li ñëwagut kon ñu jàpp nañu war nañoo def lu raw loolu ngir am daraja mag am ku ne man damay julli dootuma nelaw guddi damay julli rek am ku ne day woor dootul dog keneen ci moom ne dafay sori jigéen ñi mooy day sori jigéen ñi eh, di jaamu yàlla rek ju amatul aaju jigéen ñi day baax la yàlla sonta daganal ci jigéen ñi yenn saa yi ñëwee ci riwaay dafa dafa mer la ñu wax ci riwaay mu dajale nit ñi naa leen ma baal qawm lafz ci muslim la ñëwee antum alladina quttum yéen sam ne leen yéen yéenay wax nangam ak nangam xam leen ne man de maa leen gën a ragal yàlla fuuf maa leen ko gën a ragal maa leen ko gën a moytu te déglu leen fi yéen bi sallam day wan ragal yàlla nag moytu ko fa nga xam ne nit ki fa lay eggee ci sommet bi mu bëgg egg mënut a weesu la doon def loo def lu weesu loolu wala lu bokk la loolu nekkul ak ragal yàlla. moo tax mu ne maa leen gën a ragal yàlla kon su fekkoon ne lii ngeen di def nii ak ragal yàlla yonent bi def ko mooy nit lu muy woote da koy def ne ragal yàlla la wala jege yàlla la kon yonent bi da koy def ndax yonent bi gën a ragal a mën dara ku la gën a ragal dara loo def kon ngir moytu mbir ba di nga fekk moo def na ko pare mënoo ko ci raw na moo la gën a ragal kon yàlla subhaanahu wa taala bi moo gën a ragal ñëpp moo ko gën a xam ñépp kon lu waay def ci ginnaawam te yàlla yonent bi defu ko jàpp ne ak ragal yàlla la xamal du ragal yàlla moo dee yéen sam ñoo leen xam leen maa leen gën a ragal yàlla kon ça veut dire fekk yéen li man dina la ko def waaye man lii am ba am mooy lan mooy damay dog naam man damay woor di dog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da tëdd ci lal mën nañu woo wax loolu ne ko yonent moo la gën a ragal yàlla doon tëdd ci lal mu ne wa damay woor di dog wa tazawaju nisaa di takk ci soxna yi mu ne lii mooy sama sunna képp ku xepp sama sunna bokkoo ci man wala képp koo xam ne da ngaa bañ sama sunna bokkoo ci bokkoo ci man mooy képp ku jàng wulis sama sunna bokkoo ci bokkoo ci man lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci koor da ngay jaamoo yàlla noo xam ne yéen salaam jëlee ko ci moom di def loo ja loo xam ne yéen salaam daaw ko def ngir jaamoo ko yàlla suñu borom yéen doon tëdd ci lal bi sallallahu alayhi wa sallam dana na dana na dana ko moom mu gëstu nekkuloon lu xaram kon lii mooy li nga xam ne. mooy premier problème bi posé wu mbir yi mu teg ne yàlla fan moom la ko tegal ngir mu egg ci foofu la chaque dafa jóge li nga xam ne moom mooy moom mooy euh, li di sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit ne moom la yàlla subhanahu wa taala wax ne su ko defut yàlla subhanahu wa taala daal di moom foofu mooy su ne sax oh sax <laughs> yàlla subhanahu taala daal koy alak loolu tamit wuute nag li nga xam ne moom mooy yoonu sharia ci mbir yi muy digle charia la muy digle daf koy teg ci ay shurut bokk na ci mbir yi nga xam ne dafa làmboog digle ak yàlla sunu boroom ci charia comme ne yàlla daf ko jagle sa umma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, gënal leen ko ci ay yeneen xeet yu bari mooy ne lam leen digal mooy lu ñu mën la te la ñu mënit suñu demee ba am lu leen gaar ba mënatuñ ko digal ko day leen wàcc yàlla dafa ñoo digal li nga xam ne mooy taxaw di julli taxaw di julli nit da koy ba dara gaar go mënut a taxaw di koy wàcc kenn du ko mbugal ci mbirum da ko wàcc fattaqullaha mastataatum yàlla sax la ñu digal it képp koo xam ne daam loo ci gàttandu moo xam dangaa juum sax tey ko daal di koy def yàlla subhaanahu wa taala dala ibil buntu taw ba buntu tuub lii mooy charia al soo tuubee mu jéggal la ko waaye loo xam ne nga koy def si saa sa yàlla subhaanahu wa la lu amul ci lislaam ibbu ñu la buntu tuub te ngay gis ne ci wax ji looloo ci feeñ soo ko defee ngir fàtte wala ngir euh, li nga xam ne mooy euh, ak njuumte ngay gis ne dala ko yàlla dala ko yëkkatil lii mooy umma yonent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne yàlla gën a leen ci yeneen umma mi keneen ku ñëw jël beneen yoon mokkut ak loolu wax ñu ne da ngaa nekk beneen yoon waaye nekkoo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon soo ne uh rek ma alak la lol nekkut sharia lol nekkut li nga xamne mom moy mom moy mom moy mom moy l'islam ci alam go tam ko taw selu gis ne kon le ki doon wax lam doon waxal wala ko doon wax ak mom ko ko jox mbir mom du yàlla mi nga xamne mom mo yoni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yon yoon ba muy wax du yoonu lislaam du yoonu sharia benen yon la kay wa du yon yoonu lislaam mom lu la digalit man nga juum tuub mën nga sa dem ba tële euh, mbiri daal lay mbiri daal lay daal lay wàcc waaye da koy defee ni su ko defee ñu alag la loolu nekkut yoon bi nga xam ne moom la yoon bi yàlla doon jaar ak euh, yonent yi noonu la jaar ak xam ne mooy umma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nga xam ne nag moom la ci teg ne loolu la ko yàlla subhanahu wa di jox mooy loolu la loolu la ko yàlla subhanahu di jaay mooy ginnaaw ba mu defee lii dafa am ñaari mbir yu ñu ci déggee ñoo ci biir wax ci euh, mooy dañ koy jox yoolu yiwu waa dañ koy jox yiwu waa Badr loolu du tekki mu toll ak ñoom li nga xam ne moom mooy fadl ngëneel mën na ci dégg tamit dañ koy jox ngëneel la Badr su fekkee dañ koy jox yiwu waa Badr loolu day delluwaat ci loolu fan la wéree parce que loolu dafa laaj dalil ngir ne ñu mun koo saxal. su fekkee ne dañ koy jox ngëneel waa badar loolu njuumte gu mag la dafay ñëw di màbbal ijmaa di màbbal li jullit ñëpp daje ahlu sunna ñëpp daje ci mooy saxaaba yi ñoo gën keneen ku dul ñoom te soo jëlee moom dafay waa ba ahlu badar ñoo gën ci saxaaba yi ciy wax yenn wax mais donte am na tafaasil yu bari ñoom dañuy jël mu waxam te jël wax jooju ne ahlu badar ñoo gën ci saxaaba yi. am na xadis bu ñëw ci boo xam ne nañ ko diggee noonu bu ñëw ci Sahih Ibn Hibban waaye bu doon war nañ ci wax yu bari ci ngëneel googu nan lay demee ak euh, ni ñu teftalee saxaaba yi ni ñu gënantee mais nañ jël li mu wax mooy waa ahlu badr ñoom ñoo gën ci saxaaba yi su fekkee ne la ci jublu sëñ bi dafay am gëneelu li xam ne mooy ahlul badr mooy kon day bokk ñu gën ci ci nit ñi comme ni ahlul badr gën nit ñi loolu la chacun dafa màbbal li nga xam ne moom mooy li charia jàngale ndax kon day gën ñeneen ñi nga xam ne ay saxaaba lañ te demuñu bokk ñu day gën ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ginnaaw ginnaaw badr te la chekk ne bil ijma munta nekk loo xam ne lu munta nekk loo xam ne lu euh, lu wér la ci ci sharia ndax saxaabatul kiram ñoom ñoo gën keneen ku dut ku ñoom ndax lii di ngëneelu saxba amul keneen ku ko mën mën a am te ngëneel goor ñu ko gënee keneen ko keneen ko dut ñoom kalimatam wuuteeg li nga xam mooy sharia mooy wax ji mu ko wax dama lay teg nattu dama la teg nattu wali waaye dama lay teg nattu ab ab yonent loolu dafa wuuteeg li ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàngal dama ñëw ci saxiix al Buxaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nee na dama laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul ya rasulullah ayu nnaas ashaddu balaan qaala al anbiya thumma amthal fa amthal ma laaj yonent bi sallallahu ngan moo gën a tar mooy nattu ci nit ñi mu ne ko yonent yi topp ñu ci topp topp ñu ci topp kii ñëw moom daal ni day am nattu yonent yi daal di amoon te da koy dékku comme na ko yonent yi doon dékku la fekk loolu dafa wuteeg li yonent sam jàggale xadis bii nii timis la nekk Buxaari moom daf euh, euh, ko li ko tabiwee mooy baabu ashad naas balaa waaye indiwut bi nga ne mi ngi ci mi ngi ci at-Tirmidi kon xam ne ki nga xam ne mooy ñoo ne dañu koy nat nattu yonent yi daa fekk ne ah imaam wu woote woon ab yonent la su fekke ne wootewul na yonent bi ndax yonent la mu xam kon natu yalla su nattu yonent yi moom du ko yalla subhanahu wa taala du ko nat na ñoo xam ne ñi gën a mom moy mooy moom mooy yonent yi topp ñoo top uh, uh, topp uh, nga xam ne ñoo ci euh ñoom ñoo ci euh inshallah mën nañu yemele fi tay kon li nga xamne mom moy euh premier jotay bi ci top waxtanu yoo na ne mooy sëñ Sam Mbaye ngir dal ci layante bir ak suñuy mbokk julit di yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu